sant bu baax liñ bokk daanaka ñu ngi ça va ça va ñu ngi sant jëlal jëlal Fama. grand grand dafa ndànk bul si pare ngeen yéen ñëpp dafa leen ndànk rek yéen ñëpp mën ngeen ñëw ngeen ndànk ok grand avancé le tour ah bu arrière waaw may dem fi ngeen ko fay loolu bu kaay kaay lan mooy sa impression tey ñu lay jaale Papa Thione d'abord. waaw bu fekkee ne mais déportation da ngay def du moom. di ko jaale ak di ko jaale famille di ko jaale képp koo xam ne mi ngi la doon gindi wala mu la doon bégal ci ay parole ñëpp xam nañ ne secrétaire parole bi ku judd Sénégal fii ba mag am na lu pam doon mos a wax lu la maa ngi koy jaale ñëpp ndax dafa bokkoon ci sama kilifa yoo xam ne sama papa bi ne at dama doon jàppandi ci ñoom ci dëgër ndax ku ne xam na ni kenn mënul doon te amoo kilifa mu taxawuma foofu nag mhm. ñëpp perte nañ mais man perte naa maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi marché bi ñëpp di saako ci ñëpp ñaan ñaanal papa Thione ku ko jegewul mënoo xam baax humainement ku ko jegewul mënoo xam baax maa ngi koy ñaanal solo mais Pama ñu seetlu ni ci euh, projet bi mu doon def ci CEDEAO bi euh, defoon nga ak moom benn duo est-ce que mën nga ñëwaat ci euh, projet boobu nga xamante ni seet nga ko ak moom. waaw comme li ma la wax rek man damaa bokk ci njabootam comme ni ko sama papa yi di fee woon. Mhm. ndax ku ne xam na ne papa Thione papaam sama papa la ko dénkoon. Mhm. ñu nit ñu doon dénkaane ci moom. Mhm. moo tax li muy def loolu woon sax woowu sama yaay la woo. ne ko Pape bu Pape bu yeewoo na ñëw jubal studio ñëw def def li war a def li ma yeewoo tamit ma jëfee ndigal dem def ko mhm. vraiment gis ngeen ni mu taxawee sama grand théâtre mhm. gis ak leneen ak leneen loo xam ne kenn mënu koo wax mhm. ma def lu di ko ñaanal war nga tey moom wax ji mën na sax na ko ñëpp ñaanal maa ngi sàkku ci ñëpp ñaan suñu borom fay ko fama kaddu yi ngay sànni Wally Ballago Seck kii taawam yan kaddu ngay sànni Wally bi nga xamante ne tey moom mooy taxaw taxawaay bàyyi sama papa da doon wax naan eh, ju baax ak coono ndax li bàyyi daan mhm. ne xam na ni eh, ginnaaw papa coono dem gi rek lañuy lañuy jooy mais ginnaawam kenn du ci am looy ragal parce que Wally xam nga dafa teel a responsable teel na uuf ay rakkam gëm naa ni papaam dëddoo dina ko continuer maa ngi koy ñaanal yan bi oyof lool lool lool jërë ngeen jëf merci